tam radio futur eh, media dañu woy ak yeen ci eh, programme bi andak yeen ci eh, pencho ñu ngi ci ligne bak suñu ñaar yi gan docteur Ousmane Gueye directeur bu bu Pekin maa ngi lay docteur Ousmane ah maa ngi lay fay seen nooru jërëjëf ba tay tamit ci ligne bi professeur Daoud Ndiaye comme ça suñu rek ñu ngi ak mom professeur maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Seydou Nourou maa ngi di nuyu docteur Ousmane di leen nuyu di nuyu waa RFM yëpp di fàttali sax yaa ngi foofu Paris ngir jël fa sa médaille médaille boo xam ne académie française moom moo koy euh, jëbal euh, ñeel dëkk yi bokk ci francophonie du loolu la. waaw lool la lool la loolu moom sant yàlla rek la loolu àllarba alxames àllarba incha allah ci après midi bi lañ ko war a recevoir fii ci allah dañ koy tàmbaleeg sax yow mi di professeur euh, Daouda Ndiaye ñu waxtaan xool dernier développement yu mujj yu jëm ci lii di mbas mi. waaw jërëjëf Seydou Nourou maa ngi maa ngi nuyu mbokki auditeurs yëpp di leen ñaanal yëpp jàmm ak salaam. di wax ne dernière information yi comme ni ngeen ko xamee rek euh, mooy euh, variant bu bees bi ñuy wax omicron waaye bu ñu xoolaatee tuuti dellu ci ginnaaw gis nañu ne wax dëgg yàlla comparativement ak ni ñu ko xalaate woon euh, ci la nar indi ay loraange yu bari gis nañu ne naam naam naam wàllaate bi moom bari na gaaw na trop trop trop loolu moom gis nañ ko firnde am na waaye ba tey ji ni ci wàllu faat defagu ko pratiquement Euh, loolu mooy d' abord loo xam ne sant yàlla la parce que bu ak àndoon ak vitesse andi ak la loraange loolu problème day am waaye ñu mën a expliquer également que ñàkkul ne li tax euh, faat googu amu ci te ba léegi maîtrise bi mën a am euh, vaccination bi ci la bokk trop trop trop donc moo tax daal fekkee am na li ci bees mooy mu ngay law ma ngay dox waaye dëkk yi nga xam ne ñu ngi sàlloog vaccination ba tey France bi ñu nekk sax gis nañu ne ñoom tam ñu ngi tàmbali wax ne xale yi sax léegi dañu leen di vacciné bu seen i waaju ànd kenn bu ci kenn ànd te am à partir de seize ans foofu moom sax jarul ñu lay laaj dara hmm. donc je pense loolu mooy li nga xam ne gis nañ ko ci te xam ne dëkk yi daal ñu ngi daw di wuti sax ay li ñuy wax ay troisième dose euh, euh, mooy boost bi nga xam ne dañu jàpp ne euh, day gën a tax daal sa sa kàttanu yaram gën a taxawaalu hmm. di gën a taxaw pour mën a pour mën a xeex variant bi xam ne hmm. moom mooy la ñu omicron ñu ngi ñëwaat ak yow léegi euh, professeur ñëw ci euh, Ousmane Gueye euh, dégg nga lu professeur wax ne jarul tiit jarul tiit ndax naam sax wàllate bi gaaw na waaye fàttagul benn bakkan ndax tamit loolu tamit war na tax rek ba ñu bañ a tiit daal bañ tamit respecté yenn yi. waaw jërëjëf seen Nour damay profité rek nuyu auditeurs yi ak auditrices yi yëpp di féliciter professeur Daouda. Hmm. ci raaya bu ñu ko war a tàkkal àllarba. di fierté sénégalais yi yëpp. Mm. ah di kontaan vraiment ci université Cheikh Anta Diop. Mm. bi mu bokk. Eh, di wax ni wax dëgg yàlla damay dëggal li mu wax rek moom boo tiit c'est parce que nit bu nekk booy dem ci xare booy xeex eh, waroo ànd ak faiblesse te tiit day indi faiblesse. Mm. tiit day indi faiblesse li am solo moom mooy xam lan mooy jàngoro bi ak nan la ñuy def ba aar suñu bopp te defe naa tey jii ñu waxee Sénégal wax dëgg yàlla. Euh, à l'instar du monde entier euh, lu jëm ci sensibilisation ak connaissance ci lu jëm ci euh, feebar bi xaw nañ ci am lu lu am solo tuuti. Hmm. wax dëgg yàlla loolu moom mën nañ ko mbiral. Hmm. wax na ni aussi variant bu bees bi ñu gis nii wallaateem bare na waaye dangat gi pour faat nit ñi gis nañ ni demeewul noonu. Hmm. loolu dañ ci sant yàlla mais loolu warul tax nit ñi bàyyeeku. et la preuve. Eh, ministère la santé l'action sociale mu ngi continuer di def sensibilisation keroog maa ngi dëgg directeur SNEPS mu ngi koy gën a dëgëral. Mhm. ñu ngi continuer def sensibilisation mais aussi kuréel yi euh, sëkk CNG ak au niveau opérationnel muy centre d'opération des urgences ba léegi ñu ngi ci liggéey bi man mii wax yow invité nañ ma ci benn atelier bu ñu war a def. li jëm ci CTE yi nan la ñuy dem même bu fekkee y une faible transmission maanaam wàllaate bi bareetul comme niñ ko gisee ni ay onze cas ay dix cas même bu fekkee loolu la hmm. nan la ñu war a gën a taxawaatee nan la ñu war a gën a sàmmee suñu bopp nan la ñu war a gën a defaraat jumtukaay au niveau des des structures pour prise en charge bi am euh, jaar yoon hmm. donc pour wax la ni ba léegi ministère de la santé tegu bàyyi loxoom ba léegi mu ngi ci xeex bi mais di gën a ñaax population bi ñu gën a góorgóorlu surtout les professeurs Daouda wax léegi mooy wàllu ñàkk bi wala ñàkk bi loolu dafa am solo il faut que nit ñi vacciné wu. Mhm. il faut que ñu bu ñu bëggee vraiment mbir mi bañ am doole suñu réew bu ñu bëggee mbir mi bañ ñoo sonal nañu nangu ñàkku gën a vacciné wu xale yi nañu vacciné wu mag yi vacciné wu ah eh, ñi ànd ak eh, comorbidité jàngoro nañu vacciné wu loolu bu ñu ko defee rek. wax dëgg yàlla seen nuru xam naa ne eh, ni ñu taxawee ni bu continuer daal dina baax. Mhm, jaajëf euh, delluwaat ak professeur Daouda Daouda Ndiaye mi wax euh, Euh, effectivement ñàkk bi daanaka ñi ko def du ma ne euh, bari na waaye ñi ko deful tamit bari nañu de euh, ci jamono jile nee nga nag sax te France ñu ngay xool ndax mun nañu dem bay vacciné tout tànk yi ndax jàpp nga ne taxawaay boobee war na fee mun a am. waaw Seydou Nour. Hmm. loolu moom lu ñuy lu ñuy nangu la di ko dëggal di di d'ailleurs di ko di ko gën a renforcer. Hmm. parce que wax naa ko Ousmane wax na ko docteur Ousmane wax na ko ñeneen wax nañ ko. gis nga bu ñu demee bañ tey nii euh, boo xoolee euh, bi ak muy soog a ñëw euh, li muy faat ci bakket boobu vaccin amagul woon. Hmm. tey ku waxal yàlla rek te xam ne da nga wax rek te te wax ak sa akulaay taala ci wàllu li nga xam ci wàllu médecine wala ci science wala li nga gis ñun jàpp nañu ne bu fekkul woon vaccin bi am na naam vaccin bi li ñu ko bëggee nekkul parce que les gars yi ñu ngi ñu ngi saytu mais jàpp nañu ne vaccin bi moo ci joué un rôle fondamental au moins ci wàllu ci wàllu ci bi. par bi moom ñoom en tout cas information ñu gis constat yi nga xam ne gis nañ ko jàpp nañ ne bu fekkee am nañu delluwaay bu bari bari ci faat bi euh, vaccin bi la donc vaccin boobu nag bu fekkee loolu moo may jëriñ euh, réew yi donc en tout cas la ñu nga xam ne ñu suñu réew suñu suñu Afrique suñu loxo jotul suñu ginnaaw mm. donc bu dee ba ñii ñaan naan sax ñoom weesu nañu deuxième bi ñu nga dugg ci troisième dose bañ a même xale yi sax léegi dañ leen koy jóg jóg te même comme ni nga débat bi actuellement li ñu doon wax ci fii nii mooy lu mel ni fii nii bu fekkente ne xale bi euh, amuloo fukki at juróom-benn bu benn parent ci ñaar d'accord rek dañ lay ñàkk. Hmm. te boo amee fukki fukki at ak juróom-benn dañ lay ñàkk. mais kon kon tu boobaa est-ce que kon lu ñu war a soxla ci ay doses du gën a bëri parce que tamit gis nañ ne aussi yàggul euh, dañu sax mujjee del euh, yenn doses yi. waaw ko koo sandi ndax kenn jëlu ko woon. la parce que li ñu naan li ñu naan peut être lu la yomb rek nga xaw ko kii. mais hmm. boo xoolee tey ñun ñaa ngi daw di ko wuti ñun li ñu am dèjà bëriwul te dèjà am na ñu nga xam ne primé woon na ci ñenn jëluñu ko. c' est pourquoi ñun comme ni ko docteur Ousmane waxee ni ko euh, waa ministère de la santé di defee ñu leen di féliciter encore par rapport ak seen taxawaay di féliciter le médical mais également les relais communautaires. Hmm. parce que tey ñi ñi nga xam ne ñu di wax ba sonn ci sonn parce que xam nañu njëriñ bi mooy. Euh, euh, naam bëriwuñu la ñu ngi périmé nit ñi li ñuy soxla dafa gën a bëri donc pour man bu ñu bëggee en tout cas tant que euh, euh, euh, situation bi bëgg nañu mu continuer maîtriser wu mooy il faut que nit ñi dem jël vacciné yi maintenant li gën mooy c'est-à-dire que man dama bëgg la li ñu la demande soit supérieure à l'offre mooy nit ñi ne ñun sax nu la ñu ne amul te amoon na fi ay temps loolu laa bëgg ñun ñu gis ko Sénégal gis ko mm. feneen mooy buñ ko amee te man gëm naa la suñu suñu réew wax dëgg yàlla aussi il faut le constater ñu ngi def luñ ci man muy ministère muy état bi pour loolu am gëm naa ne bu ñëpp ne dañuy vacciné wu ji état dina wuti ji reen vaccin pour que ñëpp am ko pour man loolu mooy débat bi aujourd'hui mhm. les mesures barrières moom à la kuliyal mu mais vaccination bi ku bëgg a aar sa réew ku bëgg a wax da ngay jàpp ne pour man ñun ñëpp bu ñu bëggee nekk benn mooy dañu wut fexe ba vaccin yi ñu ñë ñu jëli ko parce que amul gisaguñ ci daal en tout cas loraange bu tax mhm. nit ñi di ko bañ a jël te njëriñ rek lañ ci amagul par rapport à ça maa ngi ñëwaat yow sax ci foofu maanaam vaccin bi euh, bu ñu ko méngaleeg mesures barrières yi euh, yenn yi euh, xam naa ne vaccin bi moo ci ëpp doole foofu la maa ngi ñëwaat foofu ci yow dellu ak docteur Da Ousmane géey ndax jàpp nga ne yow wala gis nga ne foofee ca hôpital ba fa nga ne ca Pikine ndax vraiment vaccin bi ñu ko fay fulal ñu ngi ko fay amal solo. waaw euh, jërëjëf xam nga hôpital Pikine euh, du du kii du sit pour mm. vaccination. Mm. waaw euh, site yi sante de santé yi la. Mm-hmm. ñooñu maanaam maanaam su ma nee bërëb yow. bërëb yow quoi ca Pikine en général. waaw non boo mm. xoolee bu baax nit ñaa ngi vacciné wu. nit ñaa ngi vacciné wu naam des na. moo tax ma ne la il foog ñu baral euh, waxtaan sensibilisation mais aussi euh, li ministère euh, defoon na ko tàmbaliwaat ko mooy stratégie avancée di def ay vaccinodrome un peu partout dafa loolu dafa am solo maanaam pour yokk sites yi pour nit ñi mën a vacciné wu mais di dem envers la population pour ñu mën a vacciné wu Pikine population bi naam ñu ngi vacciné wu mais des na des na il foog ñu continuer gën a waxtaan ak euh, nit ñi ñuy dugg hôpital aussi il foog nit ñi taxaw di leen sensibiliser. Mm-hmm. pour ñi mën a vacciner wu muy hôpital Pikine muy centre de santé muy poste de santé képp koo xam ni ñëw nga faju wala ñëw nga pour indi malade. ñu sensibiliser la laaj la ndax vacciné wu boo vacciné wul ñu expliquer la du obligatoire mais expliquer la lan mooy ngëneelu vaccination bi tey. Hmm. parce que ñëpp gis nañu c'est vrai le professeur Daouda wax na ko euh, geste barrière yi kenn mënu koo teg ci gannaaw. Hmm. il faut ñu def ko mais bu fekkee geste barrière yi mënuñ ci sax. à cent pour cent mais vaccination moom war nañ ci sax à cent pour cent de telle sorte que comme ni mu ko waxee rek ñu dem ba ñu naan dose doyatul te gëm naa ne euh, état Sénégal du seetaan mukk ba ñuy toog naan amu amuñu dose. quel que soit alpha dina góorgóorlu ba indi dose yi doy léegi na nit ñi dem jëli dose yooyu defe naa loolu moo am solo tey seen nootu tey daal. bu ñu góor góorgóorlu bu baax a baax jàmmarloo ak jàngoro gi. Hmm. mu bañ ñoo sonal vraiment amul leneen lu ñuy def lu muy vaccination. dañ hmm. dem vacciné wu population bi nag vacciné wu. defe naa loolu bu ñu ko defee vraiment on serait à l'abri de tout. mu ngi mu ngi ko professeur Daouda Ndiaye euh, sànq da nga insisté bu baax a baax ci euh, vaccination bi nga sax xaw wax ci suuf ne. ndax nga sentir ne nit ñi daal dañoo fulaatul euh, takk masque ak euh, soxante beeg yoon yi ba euh, ba sax sax nga ne ñàkkul ne bu ñu vacciné moom bu ñu respectul mesure yi sax loolu tam du am mais nañu vacciné daal moo gën. waaw mais mooy mooy li ñu naan li njëkk li. Mhm. li njëkk mooy vaccination bi aujourd'hui un temps mesure barrière loolu vaccin masque woon ak distanciation bi parce que loolu moo fi noonu li fi amoon. Mhm. ba suñu génn yu bëri sax nañu wax ne pour le moment vaccination bi ñu am ñun mooy mesure barrière. mais dafa dem ba vaccin donc aujourd'hui vaccin est première mesure barrière C'est tey première ligne de front donc donc te mesure parfois mënuloo ko assurer partout euh, à tout temps parfois di nga am moment yi nga xam ne di nga fàtte masque bi parfois di nga am xam ne di xaw a soofal masque bi ci même ci biir daje par boo xoolee euh, Seydou Nourou mm-hmm. parfois dinañ dugg ci benn béréb boo xam ne muy rajo muy télé muy fan nekk yenn saa nit ñi dañuy teg seen masque foofu donc ça pas dire que foofu contamination mën a fa am parce que ñu ay sujet contact lañu fekk mm-hmm. am na ko am maintenant loolu ko mën a aar foofu mooy mooy vaccin du dara lu day yokk say soldaalu yaram. Hmm. te leen ñi may doole ba nga xam ne li fi nekk ci biir danay ñëw renforcer leen ba nga xam ne bu fekkee am lu war ñëw pour lor la et c'est pourquoi ngay gis parfois ñu ne ah diw kat am na coronavirus te vacciné woon na mais ça c'est normal. Hmm. c'est normal parce que objectif vaccin bi il faut ñu rappeler ko. vaccin bi du tax nga bañ a am Covid bi. Hmm. vaccin bi day tax boo ko amee fekk seeram préparé wu na. mais professeur doguma la sax est-ce que xam nga ne loolu moo tax ba ñu bëri daal jàpp ne vaccin bi fiable parce que dañoo gis dal ñoo xamné ne dañoo vacciné wu dellu am delu am euh, mbas mi. mauvaise communication. parfois sur mhm. ça et juste c'est dommage. moy mhm. dañuy lier vaccination ak non Covid c'est pas ça. Mhm. vaccin am na vaccin yo xamné pour nga bañal a am la yooyu am na mais pour le cas de Covid 19 liñ ci xam moy vaccin bi du l'objectif principal du tax nga ne do am vaccin Covid bi. objectif mm. eh, pourquoi parce que yenn saa nit ñi ñoo am lecture boobu li dañ naan mooy vacciné wu na am na ko biir mais amul problème mais nit ñi ne ñenn ñu ne ah kon ça veut dire vaccin baaxul alors communication réelle bi ko nit ñi war a déggee mooy mm. ça prouve que bu fekkoon vacciné wul woon kon tey mën na ko faat mën na ko lor mm-hmm. donc mm-hmm. pour man foofu lañ ko war a mën a gisee donc quand on dit ah moo tax parfois même ñuy communiquer li gënoon mooy buñu sax que ñenn ñi mën nañ ko interpréter ñeneen wala ñenn ñi malheureusement mën sax déformer information mm. moo tax li gën rek mooy

mooy comme booy dem màkk wala nga dem lieu saint yi ñu ne la grip da nga koy vacciné waat ku fa jógee ñu yàgg dem ci lieu saint yi gis nañu ne bu ñu ñëwaatee du teree dañuy grippe dem sax hmm. mais grippe bi du leen sonal foofu la ñu war a jàppee covid bi encore une fois ngeen joué ci rôle encore continuer ci yéen communication hmm. communicants yi yéen presse bi hmm. pour gars yi da xam ne covid bi au contraire vaccination bi pour ànd ci nga bañ a faat lay doon gisaguñ ko fi du ma ne nag du am mais vraiment ratio bi ñu gis ñi vacciné wu moom ils ont quatre vingt dix neuf pour cent de chance pour que bu leen sonal. du leen sonal docteur ndax yéen par exemple rigueur bi ngeen tegoon ca hôpital bu Pikine jëm ci mesure barrière yi ndax ba tey moo ngi fa. waaw ba ba léegi ñu ngi koy sàmm ba léegi ñu ngi imposer port de masque bi ça c'est obligatoire dans l'hôpital loolu moom euh, duñ ci dellu gannaaw parce que bokk na ci lu mën a xaar nit Eh, eh, ñu ngi ci bu baax mais danga may may rek ma delluwaat li professeur wax dafa am solo trop trop trop ci communication bi et loolu defe naa aussi presse bi war na ci taxaw bu baax nit ñi xam lan mooy solo eh, vaccination bi ak nan lay aaree nit hmm. parce que li mu wax dafa am solo e yow tam wax nga ko parce que ñu bëri ñu ngi naan hmm. man vacciné wu naa mais am na virus bi hmm. am naa virus bi mais ni ñu war a xam ne vaccin bi mën nga ko def mën na laa aar nga bañ a am eh, eh, jàngoro bi mais mën nga am jàngoro bi mais li ci gën am solo mooy jàngoro bi du la sonal. Mhm. c'est-à-dire doo évoluer vers un cas grave. Mhm. loolu dafa naa ni ñi war nañ ko xam ni xam ni loolu vraiment bénéfice bu mag a mag la loolu de telle sorte que li may faat day wàññeeku bu baax a baax a baax donc. Mhm. communication boobu lu am solo la pour population mën a comprendre xam ni vaccination war nañ ko def du caageen da nga vacciné wu dootoo am feebar bi mais mën nga am feebar mais feebar bi du nekk cas grave du évoluer vers un cas du la lootal. du la mhm. sonal. defe naa loolu il faut ñu gën ci taxaw encore. ci explication bi de telle sorte que population bi mën a mhm. fulal ak faydal euh, euh, vaccin bi parce que ça ne sert à rien dugal ay moyens dul jeex indi ay dose dose yi di périmé wu loolu ñun war nañ ko moytu surtout que muy réew boo xam ne amul doole muy réew boo xam ne du moom mooy fabriquer vaccin mhm. euh, demaat ci professeur Daouda Ndiaye ñàkkul sa kàddu gu mujj gannaaw kàddu yi nga yëkkati nag ñax askan wi ñu dem vacciné wu ñaax askan wi ñu vacciné wu ba ba balaa li ñu dal nga xam li xew ci dëkk Europe yi ak dëkk yeneen yi xew fi mooy boo demee fenn pour dugg ci boutique sax wala pour lekk dañ laa ne ana sa carte de vaccination. Hmm. je loolu lépp pour pour rek pour ay teg ay hmm. pour man loolu sax mën nañ ko bañ a egg bu fekkente ne ku ci jël nga jàpp ne yow yaa war a jël sa solo bopp dem vacciné wu ji parce que feebar faj ko boo gën a metti prévention. la la jël en charge euh, euh, Seydou. Hmm. dafa dafa bari dafa du Sénégal àdduna yëpp dafa ñëpp xam ne dafa cher. Hmm. pour ma ñu la fay egg nag ñu la yóbbu hôpital ñu la hospitalisé nga yi mbokk yooyu sonn nañ dem vacciné wu ji te xam ne loolu mooy njëriñu Sénégal mooy njëriñu jamono ji toll loolu laa leen di nuyu ñëpp di leen sant di sant sama grand frère bu baax di nuyu El Hadj également ak euh, wax dëgg yàlla di leen sant ci émission bi je pense que également on continuera comme ça rek ba nit ñi jàpp ne lii mooy solution bi. incha allah docteur Ousmane Gueye waaw waaw seen nooru lu ñuy def rek mooy jaajëfal la bu baax a baax a baax di eh, sant ñëpp di wax ne nañ continuer vacciné mm-hmm. nañ continuer tàkk suñu masque mm-hmm. eh, feebar bi mu ngi fi amatul doole noonu ci monde bi mais wallaat bi bare na eh, li tax doole bi wàññeeku ñàkk bi la mm-hmm. donc ñu itam bu ñu buggee vraiment continuer ci tendance bi ñu am ni muy tendance mu am solo te ñi war ci féliciter personnel de santé war ci féliciter relais communautaire yi nañu góorgóorlu jàpp ci vaccin bu bu baax a baax a baax. mu ngoog jaajëf docteur Ousmane Gueye euh, de directeur bu talu Pikine jaajëf jaajëf naka noonu professeur Daouda Ndiaye. jaajëf ñoom ñaar suñuy gan Abdoulaye bu dee mën nañu ubbi antenne bi ci diiru 5 minutes rek laata waa xalaat yegg si ñu ubbi ko ci 88 14 14 wala 88 628 14 15. Set, set, set, set, set, set, set, man, set lunar. ñu ngi ci ligne bi ak kenn asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar. El Hadj Seydou Nourou Ba. ñu lay ziar di la ñaanal. delloo ziar bu di la ñaanal wax dëgg yàlla di rafetlu toujours la rajo Futurs Médias. Mhm. te yéen affaire bi amee ba léegi chaque jour yéen a jël seen wax ak di waxaat askan wi. Mhm. defe naa askan wi nag euh, wax dëgg yàlla wax dëgg la njukkal waa RFM ak personnel de santé yi tout wax nañ ba dugg boîte vocale. Mhm. nit ñi nañu gën a góorgóorlu Seydou man damaa xamul lan moo tax sénégale yi nangu ñoo vacciné wu daal man loolu moom ma jaaxal. Mm. tu sais xam nga Sénégal toujours nag dafa xaar toujours ñu ñu jëlee leen yàq wala à la dernière kii au dernier moment. Mm. Eh, ñun de fii si platu laalo yàlla rek mooy tax may wax vaccination bi dexawul lu mu wax a doxee fii laalaw mm. yàlla rek moo tax ma wax de mm. man naan vacciné wu naa man mm. man Oumar Sow vacciné wu naa te képp ku ànd a proposé Moussa Baldé Moussa Baldé mu ngi lay ñaax vraiment képp ku ko gëm na nga dem vacciné puisque loolu mooy aar askan loolu mooy aar aar suñu économie yoo daal yoo daal Oumar Sow yoo daal fa politique quoi ah yow daal foog nga politique non non xam nga du question politique. waaw nañu respecté waaw. waaw euh, puis c'est proposé Moussa Baldé dafa am lu muy firnde si biir biir Kolda. tey ji am na koo xam ne dafa gëm Moussa bu gëm vaccine bu déggee si rajo Moussa nee nañ dem vacciner kooku peut-être dina am euh, hmm. a dem vacciner wu laal man foofu laay waxee quoi hmm, te dafa am lu muy marqué fii euh, euh, <laughs> si hmm. kii de Kolda su ne mu koy wax laa la wax yéen seen rajo bi ak waa kër docteur yi nañ góorgóorlu nañ dem vacciner wu laal fi te loolu kese moo mun a kii laa la feebar bi vaccin bi mënu laa tax ki do ko am mais mun na laa fragiliser feebar bi mm-hmm. il faut wax di leer tamit ci bopp nit ñi leer na c'est important damay ñaax ñu vacciné ko ala law ci billahi sidi nour ba maa ngi lay gërba def de ñaan yalla defal lañ jàmm amin ñu ñep mu defal ñu jàmm inshallah abdoulay ñu wéyal waxtan yu rek bu dem keneen ku ci ligne bi ñu jël ko la ñu xat tuti salaamaaleykum waaleykum salaam. nga ziar. delloo ziar bu baax a baax Seydou Nour. alhamdulilah. nuyu baax a baax. nuyu kooku. nuyu waa groupe Futurs Médias ñëpp. jërëjëf waay. allo. oui dégg bu baax yow la kan. Ousmane Ka la Medina. ah Ousmane Ka waa ñooñu. ñu si am baax a baax. bisimilah. waaw Seydou Nour. gis nga li wax si feebar bi. Mhm. waa groupe Futurs Médias moom euh, luñ ci war wax wax nañ ko ci. Mhm. lan mooy wax ji. Mhm. képp ku war a wax vacciné wu na dem vacciné gi. Mhm. ndaxte nit buñ la waxee lii boo ko defee mun na la aar. Mhm. demal defi ko loolu moo gën ndaxte nee na la vaccin bi mënul tere nit ki feebar waaye mun la mun na wàññi déeg yi wala yow am nga sens. Euh, boo wax ne woo am nga sens boo feebaree lu bëri mun nga ci mucc. dégg ngeen sànq sax lu professeur Daouda Ndiaye wax ak usman Gueye ne vaccin bi du caagil ne boo ko defee doo ko am waaye mun na laa muccal ci lu gën a doy waar. waaw kay loolu docteur wax sànq man loolu moo xam nit ñi dañu képp ku war a war a jël vaccin da nga war a dem jël ko hmm. ndaxte moo lay aar hmm. néewule mu dana la tere feebar waaye boo boo ko amee yow am nga sens pour doo bokk ak koo xamante ne jëlul vaccin bi hmm. loolu moo tax seen nuru ñëpp dañu war a góorgóorlu dem dem jël vaccin bi loolu kese mooy mooy affaire lu leen mënta wax tamit day sonal boppam rek loolu kese moo mooy mbir mi jërëjëf jërëjëf merci Ousmane Ka Seydou Ka am na keneen ku nekk ci li ñu sax moo nekk ko mujj su moyul asalaamaaleykum. Seydou Nour. Ousmane Dem Projanti Gabon. ah non Projanti Seydou Dem. alhamdulilah macha allah. ah bisimilah ma. ah mais Seydou Nour. gis nga fii ñun instant bi obligatoire mhm. la. Mhm. boo ñàkkuwul. Mm. am na le quinze bii di ñëw. Mhm. boo ñàkkuwul doo doo liggéey ngay fayeeku. Mm. tax moom doo ci yéeg doo génn. masque yi ba léegi nag obligatoire da ngay takk fal force booy génn. Ah. te ba léegi Seydou Nourou Ba depuis corona commencé ba léegi ñu ngi si couvre-feu. ah ba léegi xamul ba léegi ñu ngi si couvre-feu. ban heure ngeen di commencé ban heure. vingt vingt et une heures. ba kañ. ba ba cinq heures du matin. kenn du génn. kenn du génn fooy jëm. ah loolu Gabon la mhm. kenn du yuuxu Gabon ah, gis nga fii. Mhm. nguur fii rek la am. Mhm. toog di wax li n'importe fii fii amu fi kenn ŋaangul laaloo ñëpp a toog ne teg. respecté lépp di déglu mhm. respecté lépp. Mhm. sañoo sañoo sañ sañoo def ah, di di lanc lanc comme ça sañoo ko fii sañoo ko. Mhm. parce que boo ko defee dina xam lan la lan la ci fekk. lan la ngóor njëriñ. Sénégal nag ragaluñu defuñu dara tiituñu ra fii nag dañuy da ngay ragal perte sa xaalis bu la jàppee dañuy def fanaan commissaire yaa nga fay quarante huit mille oubien cinquante mille oubien ba soixante quinze mille yow rek yaay perte. Hmm, yaay perte léegi nag ñëpp dañuy dugaat. booy hmm. génn takk sa masque ah boo ñàkkul amoo saa fii étranger yi ñu siy gën a bëri ñëpp ñàkku nañu. Hmm. léegi nag waa dëkk bi ñàkkuwuñu woon waaye léegi ñoom commencé nañ ne képp ku wul doo liggéey doo fayeeku doo doo génn doo dem fenn. Ah, léegi évacuatoire ñoom ñëpp ñu ngi dem ñàkku ji léegi. waaw ah, message am na solo noonu la asalaamaaleykum. maaleykum salaam jërëjëf jërëjëf. Euh, di nuyu waa Port Gentil yëpp kon Abdoulaye xam naa rek foofu ñu ko yemale euh, mu nekkoon euh, penco di tam jaajëfal baax a baax suñu gan yi waaye tamit di jaajëfal xaaju Assane Gueye mi ñu fi wuutu woon di tam jaajëfal euh, ñi ci jot wax yëkkati ci ay kàddu Abdoulaye Diop jaajëf ñu dalal incha allah lu yàggu dara wax xalaas gannaaw ñoom si Seydina Abba asalaamaaleykum